danañ ko fa fas yéene traité ànd ak ay boroom xam-xam yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc lool ci mbàllum diine la nga xam ne waykat ba mën la doon wax naan yatwi bi ka dunya wa innaka hahuna lam tantaqil fa ka anna rasaka yaxlumu moom chaîne bi noonu la fas yéene def dalay taxañal àdduna fekk la sa néeg daal di lay jox information yoo xam ne yu doy sëkk la nga mel na kuy gént képp koo xam ne bëgg nga jot ci information yi nag fexeel abonné ci chaîne moom la ñu wax Ndar Ràññee Info wasalaamaaleykum wa